d'abord maa ngi leen nuyu buur di nuyu waa Dakaractu yëpp fi ngi ñëwee nag xam nga fekk waa CNOSS ñëw fii nga ànd sa patron xam nga vraiment di am contentement d'abord seen teewaay parce que ay nit ñu baax lañ jamono ji ku nekk xam na ni jug yombul mais ñu bàyyi te yëpp xam nga def seen jaal. le président Ndiaye la la moo moom tey ba jëf ci tool yi. waaw xam nga ci sama loxo gars jaar ak Serigne xam nga moom moo ñu boole moo ñu mettre contact xam moom kuy wax sport waxuma la Sénégal rek dafa jéggi frontière ci adduna mm-hmm. di nga ci boole xam muy suñu fierté ñun sénégalais yi di ko ñaanal yéen bi nekk ci kawam yàlla oyof tol xam waaw sëriñ moo ñu boole xam nga ñu fas yéene jàppante ci lu bari incha allah. waaye mm-hmm. ñëw fekk si la wane ni que yéen a bokk ndey waaw waaw xam di wax rek làmb moom sport sax la ñuy wax de manière général luy booy la warul tàggale mukk te chaque jour moo ngi koy wane parce que puisque bu xew xewlee ñëpp teew xam nga gis naa ko ci suma dese bii ñu am xam nga képp ñëpp teew nañ ñëpp ñëpp ñu fi nekk ñëpp ñu fi nekkul it xam nga woo nañ ma vraiment kontaan naa ci trop trop trop xam nga di wax sport moom nii la quoi. da ko war a boole rek warul tàggale te gars yi wane nañ ko daal xam nga. diggante Baye ak Modou.